li nga xam ne ay recommandation la ak ñi nga xam ne dañu soxla ñu def ci vidéo ku bëgg dara ñu def ci vidéo aussi defal noonu am na ku ma defal ci commentaire wax ne daa bëgg ñu def vidéo ci ñebbe gis naa mu répété ko 4 ba cinq fois ci commentaire am xam naa ne yitteel na ko waaye dafa fekk pareeguma ci woon te dañu bëgg lu ñuy wax it ñu am ci lu leer nobisa boo xam ne mën nañ koo joxe te gën a nekk lu leer ci sukkandikukaay euh, ñebbe li ngay jàpp ci gént baax na am na nag ci ay quelques points yoo xam ne du ca baax danaa ci ñëw Euh, euh, li may njëkkee nag damay firi def tafsir boo xam ne dafay nekk chamil lil bi maanaam ñëpp ñooy bokk interprétation yi bu amee yu may sekki rek tax si benn benn rek dinaa ñëw du bokk ak ñu mu doon firee yee parce que bii ni bindoo moo tax euh, bu njëkk bi ñëpp ñoo ko bokk nga gént jënd ñebbe bu bari nga jënd par exemple ay saako ñebbe wala nga jënd ay tonne ñebbe ci gént wala nga gént am ko mbaa nga gis ko ay tonne ñebbe ci ñëpp baax na ci gént lan lay firi day firi alal alal ju bari yu nekk si yoon di ñëw wala dana firi stabilité léeg-léeg ci ko amul liggéey dana firi palaasu liggéeyukaay bu baax dana firi njàqare ak xat-xat nan laa mën a waxee benn lim yi yëpp xam nga ki nekk ci ay tolof-tolof ak njàqare ak xat-xat la ko yittil mooy problème mu jeex am na koo xam ni amul liggéey fi mu toll mooy nu mu def am liggéey am koo xam ne euh, ay difficulté ay chaque jour dugal ci kii kooku stabilité la gën a soxla conscience am bu dal la gën a soxla euh, ki nga xam ne nag yii yëpp daje na si moom moom yitteem mooy xaalis mu mel ne man kooku mën na firi ci moom xaalis kon yii yëpp mën na ko firi àllaa kulli xaal da nga gént euh, ñam boo xam ne ñebbe la maanaam ceebu ñebbe par exemple wala ñebbe bu ñu togg généralement lépp nekk ñebbe càlle nit ñu kontaan dana firi xabaar bu neex ci ñëpp da nga gént di togg ñebbe da nga koy togg moo xam da ngay togg ñam boo xam dafa am ñebbe day firi euh, stabilité comme ni ma ko waxee ci ginnaaw waaye surtout dana firi problème maanaam ay réeroo yuy jeex sa diggante ak ay maam maanaam nit ñu amoon problème ñoo nekkoon ci ay jafe-jafe dana firi loole dafay nekk luy dañ juboo ci sa diggante ak ñu am problème kon baax na euh, célibataire bu mu mën a doon bu góor a bu jigéen cant gént jënd ñebbe maanaam bu dee da nga jënd du bëree bëri dugg nga fële mais bu dee da nga kilo ñebbe jënd yem ci ñebbe dina koy jëkkër mbaa soxna ci yow da gént di séddale ñebbe di ko séddale nii ci gént dana firi xéewal généralement dana firi réussite ci say mbir bu dee liggéey la bu dee jàng la dana firi yëkkatiku ci sa situation jóge ci xaal wala ci situation bi nga nekk dem ci situation bu gën a baax danga nga gént ñebbe bu ñorul ñebbe bu ñorul nga gént gis ci kamiya bu yem kenn toog maanaam nga si lu tuuti nii surtout nga di ko lekk baaxul lekk ñëpp mu ñëwul baaxul day firi xat-xat day firi tolof-tolof day firi léeg-léeg ñàkk kooku gënu ci gént mhm. euh, balaa ñu ci continuer ñu ngi leen di présenté cangat gii defe naa ne li ma wax ak keroog képp koo xam ne suñu abonné nga dina suivre fekkee mën ngaa góorgóorlu nga jéem am sa ji nga jéem ko am ndax solo ci nekk ci wàllu ubbeeku ndax lii du cangatu gone waaw bu euh, am solo lool la ci wàllu ubbeeku ci wàllu bayre ci wàllu daraja surtout koo xam da nga soxla kaaraange bëgg lool mu ngi nii incha allah mun déggante mën nañ fexe ba nga jot ak foo mën a nekk euh, ñebbe ci jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu si Euh, dana firi dal dana firi jàmm dana firi xéewal dana firi yu bëree bari da nga gént di bay ñebbe par exemple nekk ci toolu ñebbe di ko bay day firi yëkkatiku ci daraja yëkkatiku ci njàng yëkkatiku ci alal wala ci sa liggéey baax na da nga dugg sa néeg wala sa kër nga fekk fa ñebbe day firi wërsëg bu yaatu yaatu ci ñëpp ñoo ko bokk euh, wala dana firi njaboot bu bari tabarkel sa kër ñebbe ci sa kër dana firi benn wërsëg bu yaatu wala ay doom yu bari ñebee ci gént surtout ci sa kër wala ci sa néeg day firi am doom boo xam ne yàlla mën la caa defal yomb te lool te wér topp ci incha allah jigéen ji ma sa sëy ba sëyatoo jàppante ñebbe dina firi ci yow wërsëg dana firi tawfiq dana firi mucc ci feebar wala wér ci feebar bu dee la caa fekk baax na lool euh, gént lekk ñebbe boole ko mburu comme mburu ak ñebbe kaneen yi kontaan nañ xam nañ li ma bëgg wax ndaw ko ndaa yi xam ne li ma nga xar mburu dem ca kii <laughs> ji defal la ñebbe ngay lekk euh, baax na lool ci gént lool euh, ci koo xam ne yaa ngi néegu sëy maanaam góor la dana firi ëmb ci sa soxna jigéen nga dana firi ëmb ci yow te nga nekk ci néegu sëy koo xam ne nag amoo jëkkër wala amoo soxna dana firi soxna wala borom kër ci yow ala kulli xaalin kon li ngay jàpp ñebbe ak quatre-vingt-quinze pour cent baax na am na fu mu baaxul tudd naa benn mooy lekk ñebbe bu ñor beneen mooy ñebbe bu nëb bu bu ñor bu baaxul kooku day firi ñàkk wala torof torof wala ay xat-xat mi ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu